patriote dama len wax lan moo tax président nekkoon hôtel Azalaï jóge fa dem hôtel Méridien président bi élection yi djéxé bi ñu voté ba paré résultat yi génn ñu gagné ci la démé hôtel Azalay, ci la démé hôtel Azalay. et c'était normal mëno nek président de la République ba paré ba paré ñeu tok sa kër sa kër fess del ak koñ ba ak ni mu sécurité et tout ci la ko gaay yi en charge parti bi parti bi ci boppam moo ko jël en charge seen dërëm yeeg seen ñaar dërëm yi ñu doon dajaloo dajale ñu jël ko fay hôtel ba parce que dama gis Moustapha Diakhaté muy wax comme si naan yàqu xaalis la ñuy jël gañe mënoon na def nii dem toog ca otel di fay donc rupture la ñuy woote mais gis na ni ñu ngi yàq di commencé yàq xelu nit ñi ci Moustapha Diakhaté laa ko déggee donc par am na ñoo xam ni dañuy déglu genre Moustapha Diakhaté yooyu noonu pour am élément loo xam ni moom la ñuy wax donc ma xamale ni état bi du kenn moo ko fayal hôtel ba lu dul parti bi Modèle en charge nek gi mu premier ministre Ousmane Sonko nek gi nekon hôtel Azalaï parti bi moko en charge. parti bi moko fay ba nga euh, dem prêter serment le 2 bi prêter serment le 2 ba pare nak Fofu ci lay président de la République du Sénégal Fofu état bi en charge ñom ñoko jël ko hôtel Méridien président parce que pour finir. am ay liggéey ay travaux ak yoo xam ay finition yoo xam te ne dañ koy def ci bi parce que c'est aussi Macky Sall ñaata at la toog ñaata weer la toog soog a dem palais Macky ñaata weer la toog Macky Sall hôtel euh, Macky Sall hôtel Radisson la nekkoon Radisson la nekkoon fa la njëkkee defee déclaration lépp lu mu doon def hôtel Radisson la ko doon defee muy soog a falu te boobu mi ngi ànd ak Moustapha Diakhaté bi état bi état dafa am dafa am ñoo la ñuy liggéeyal ñoo xam te ni du nit du ay nit ñoom dañ leen di gis nii wala ñuy lambar lambar te état la ñuy liggéeyal ñooñu ñoo ko jël yobbu ko fi mu nekk ne instant premier ministre fa lañ préparé sen gouvernement fa ñuy liñuy liggéey liñuy def lepp fa lañ koy défé liñuy def lepp fa lañ koy défé pour l'instant en attendant ñuy déménager dem palais kii dem primature kii dem fi mu war dem donc ñu xamé ko nonu dégg na nak sama grand clé d'or ben vidéo bu gaay yi partagé démb muy expliquer di wax euh, que ni am na ay renseignements ñoo xam te ni ay renseignements généraux am na lu ñuy pare jéem na jot Ousmane Sonko jéem na def li man nag waxam jooju dafa ma def ay ree quoi parce que dama ko jàppee comme waxi ton parce que ñoom dama yaakaar dañuy seetaan Netflix lu bari quoi Netflix bi ñuy seetaan la ñu war a bàyyi. Sénégal renseignements yi renseignements généraux yi ak gars yooyu noonu bu ñuy liggéeyal Macky Sall Macky Sall dafa nekk comme président moo tax ñu ko doon liggéey état ñuy liggéeyal bi Macky paree tourné nañ ko doo état la ñuy liggéeyal. Sénégal du dëkk yi ñuy gis nii nii nii yenn caaxaan yi gars di wax ay nax jomaay nax wóor na nax li yooyu du Sénégal il faut des fois ñun patriotes yi ñu dalal suñu xel ci yenn yi am yoo xam te du am mënu am Sénégal Sénégal dafa wuuteeg yeneen dëkk yi ci lu bare bare bare bare bare donc quant à dégg dama clairom ko dégg mu wax ni ay renseignement yi def nañu lii jéem na woote am na lu ñu fa def hôtel Méridien et tout loolu man góoma ko te jàpp naa ni amul ay caaxaan la gars yi dañu war a bàyyi seen Netflix yi ñuy seetaan ah. film yi ñuy seetaan damay dégg Akhenaton des fois mu naan dama koy dégg mu naan ay ay renseignement police gendarmerie armée de terre ay nangam frontières yi wax yoo xam te ni comme si Sénégal ma dama leen déglu ay ree daf may jàpp quoi wala koy koy partage partage ñi koy partage dama yaakaar ni lu bëri daf leen ump ci Sénégal Sénégal du ay caaxaan yu ñuy wax yëpp di leen tiital ak yenn wax yi loolu dara amu ci ay caaxaan la renseignement yi ba Macky Sall pare lañ pare ci moom dem continuer seen ay liggéey état la ñuy suivre boo nekkatul président pare nañ ci yow mu toll nii Diomaye la Sénégal donc waxam vraiment pour man